télé bi bégal sama askan Ladoum TV c'est Ladoum TV ding ci gis sa bopp jànge falun émission animal aywa mbokk yi yéen a ngi fii ci box numéro 215 bergerie Serigne Moustapha Sy Djamil fekk fi ki nga xamante ne moom mooy Khadim Mansour avec un très beau mâle macha allah grand. waaw la ziar la bu baax. salaamaaleykum mbokki Ladoum TV. mbokki mhm. Sénégal maa ngi leen di nuyu di leen ziar. Mhm. Euh, Khadim Mansour la borom bergerie Serigne Moustapha si jamil mhm. bergerie bi nekk euh, Louga. waaw euh, maal bi mooy Abdou Salam. Abdou Salam waaw Abdou di mhm. di Espoir. Mhm. am 15 mois di doomu Aras. macha allah waaw Aras Var. Mhm. waaw doomu Aras Var borom trophée ah. borom trophée yi waaw. est-ce que mën nga ma fàttali yan trophée la amoon moom Aras. waaw euh, Abdou euh, Aras Mhm. moom moo jëloon champion Saladam Espoir. 2020. 2020 waaye waaw nekkoon euh, Espoir boo xamante si ni champion Kalla Khoule moo ko moomoon. Mhm. Euh, mu nekkoon maal bu maal bu maal maal bu doy waar daal. Mhm. waaw macha allah euh, am na yeneen waaye yooyu dinañ ci ñëw après doomam ji nga xamante ni moom mooy Abdou Salam. waaw nekk benn jeune mâle boo xamante ni euh, nee nga espoir la vraiment 15 mois la am 15 mois la am mhm, mhm, mhm. Euh, moom yaay ji benn euh, doomu Candeela la ak benn doomu Khouraychine. ok waaw Candeela de Aïcha Albouri Khouraychine moom nekkoon mâle boo xamante ni moo jëkkoon xam nga dafa bokk foo xamante ni moom. macha allah. mu nekk lu am solo vraiment mu ñëw nag ànd ak ay femelle ah macha allah. comme kii kii mooy kan. waaw kii mooy yëngu leen. waaw yëngu leen euh, moom euh, duggoon na concours Agnel Touba 2020. waaw mu jëloon euh, quatrième place. ok waaw moom muy doomu V8. Mhm. V8 di doomu Gora Gora di doomu Petit Birahim Petit Birahim Birahim bu mag. moom yaay ji di doomu Cheikh Amar. Cheikh ah, Amar ok Cheikh Amar. ok ok ok V8 moo nekk noonu. waaye kii mooy kan. waaw kii mooy Nafi. Nafi waaw Nafi Faye la tudd. Mhm. waaw moom di doomu Alla ak Sabel. ok waaw àll di doomu Carlo di mhm. Sabel di doomu Ado Fils Ado Fils Ado Ado ba séeréer waaw mhm, moom it mu mhm. nekk xar boo xamante si nii macha allah maa ngi ko jëlee woon Touba mi ngi rafet macha allah wax dëgg yàlla ak euh, euh, kii mooy kan waaw kii mooy waaw moom it euh, mi ngi toll ci treize moom maa ngi ko jële woon ci Grand Latir Cissé moom doomu Renaissance la waaw yaay ji di fixé Gelewaar Renaissance di doomu Ramadan bu Papi moom kii mooy taawam quoi. ok macha allah. kan la ko taaw lool moo kan. Euh, mbote bi euh, Thiam Babel moo ko jur. ok Thiam Babel bi nekk ci Grand Mor Sène. Grand Mor Sène Thiam Babel dañoo boole ñaari doomu maxu sëy. waaw euh, Thiam Babel jur ñu jël Thiam Babel teg ko ci salon boobu mu wàccee Codou Fall. nekk mbote bu doy waar macha allah Mhm. vraiment en tout cas mu nekk lu rafet nga def exposition bu rafet vraiment. jóge Louga mu metti lool. Mhm. mais foire bi neex na quand même. waaw foire bi neex na lool macha allah foo ko takk moom weesu na. Euh, yi rafet na lool xar yi. xar yu tippee ñoo fi nekk. effectivement euh, am na niveau lool macha allah daal. macha allah ay jàmbaar la. kon daal vraiment mhm. rëcc woon loo. loo doon loo doon dara ñëw ci foire dama ci dama kontaan lool wax dëgg fa yàlla. ndax euh, bari na loo xamante si ni daal jànge naa ko ci foire bi. te xam naa ne bu ma bu ma delloo. Euh, fi may gën a teg sama tànk daal dinaa ko xam quoi. aywa lool mooy sababu foire foire da ngay ñëw pour joxe li nga am waaye nag mhm. euh, partage ak nit ñi li nga xamante ni mhm. ñoom moom la ñu am kenn ku ci nekk da ngay jox sa mu nekk lu am solo fan nga dëkk ci Louga euh, cité Vatel route de garage Touba mhm. waaw foofu la ku fay ñëw ban numéro de téléphone lay woote waaw 70 228 17 16 waaw boo ci wootee di ma jot ñu lay jaajëfal bu baax ki mooy Khadim Mansour ñu koy jaajëfal bu baax a baax di la ñaanal euh, bonne continuation mon merci beaucoup ku baax voilà merci beaucoup jaajëf xale bi bégal sama askan